dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall dogal yi nga xamante ni jëloon na ko ba woppi coronavirus doog di am ci réewum Sénégal ak deltu ginnaaw gi nga xam ne daanaka cay deltu ginnaaw loole nag tax na coow li bëri loola yéenekaay gi di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa ancien ministre Aliou Sow moom ne daan nay wax ne dogal yi nga xamante ni président Macky Sall daan na ci deltu ginnaaw moom nag mbir mi daan na koy choqué loola àndu ci nag lenn kese la daal di ànd muy nag jëlee Sénégal yi nga xamante ni ñoo faatu bitim réew andi leen ci réew mi Aliou Sow ne Macky Sall ak deltu ginnaaw gi nga xam ne deltu na ko ci mesure yi nga xamante ni jëloon na ko loolee moom ci boppam munu koo daal di comprendre Seydou Gueye moom nag la mu xamle nee na amul benn pression boo xam ne dañu koo teg ci kaw njiitu réew mi ngir nag mu daal di ubbi li nga xamante ni maanaam mooy jumaa yi ak jàkk yi yéen a kaay gii de Le Quotidien mu ñu xamal naa ñu ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi moom nag dafa jël dogal ngir nag ubbiwaat li nga xam ne mooy tribunaux yi maanaam tribunal yi waaye nag loolee mboota mbootaay gi nga xam ne moo ëmb magistrat yu Sénégal du EOMS ñoom nag dañoo lànk kandaare nee nañu duñu nangu benn yoon ku leen di tayle yéen kaay gi de laa turbine mu ñu xamal naan ñu lu toll ci téeméer ak fukk benn ci ay sénégalais daan nañuy faatu ca bitim réew Covid 19 moo leen daal di rey yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu ci réewum Sénégal jamono ji mbir mi ma ngi gën di doy waar am na nag juróom-ñeenti nit ñoo xamante ni ay cas lañ maanaam ñoo ngi réanimation jamono ji yéen gi mu ñu xamal ñu xam nga nag état bu Sénégal bu njëkk képp koo xamante ni daal maanaam jege yaan tong ak ku amee woppi coronavirus dañu lay quarantaine yóbbu la ci otel yi waaye nag loolee état bu Sénégal daf cee daal di deltu ginnaaw ndax jurulu ko njariña ndax jamono ji lu toll si juróom ñaar ci ay junni nit yoo xamante ni ñoo ngi ci hôtel yi te kenn ku nekk saa sunu xëyee danañu la fayal cinquante mille cinquante mille yooyee nag ñoom ñëpp bu ñu leen fayalee bis bi ma ngi nekk trois cent cinquante millions weer wi nekk fukki millions yu fekk juróomi téeméeri millions a yéen a kaay gi quotidien ne loolee lépp xaalis bu du jeex la moo tax état bu Sénégal nee na léegi képp koo xam ne jege yaan toonga woon ak ku amee coronavirus dañu lay quarantaine waaye nag sa kër fa ngay daal di toog yéen kaay gii di enquête mu ñu xamal naa ñu vaccin bi nga xamante ni adduna bi ñoo ngi ciy waxtaan ngir nag daal di koy defar ngir Covid 19 njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag dafa mel ne lu yàkkamti vaccin boobee ndax moom Macky nee na vaccin boobee daal bu ñu si fàtte Afrique bu ñu ci ginnaawal Afrique yéen kaay gii di réew mi xëy fekk fa docteur Moussa Thior moom nag nag la mu xamle nee na nañu bàyyi askan wi ñuy circuler région ak région woppi coronavirus ak ni ñu koy waxee ak ni ñu koy ñàngalee maanaam demeewul noonu gaaw a wàllante gi sax amu ci état d'urgence ak couvre-feu bi nga xam ne Sénégal jël na amul benn njariñ ñu fekkaat ko ci yéenekaay gi di Vox Populi moom Moussa Thior la mu xamle nee na Covid 19 ak ni ñu koy yan ak ni ñu koy waxtaanee li ñuy si wax lépp ci réew mi ak ëppal daf caa daal di am su dee nag Covid 19 bi ci réewum Sénégal stigmatisation am na fi maanaam mbirum boddante ak nag ak tiitaange lépp waa ministère de la santé ñoom ñoo ko waral ci ni nga xam ne moom la ñuy communiquer yéene kaay gi de las mu ñu xam naa ñu docteur musa Thior kay dafa ñàkkal fayda li nga xam ne mooy covid 19 yéene kaay gi de l'observateur mu ñu xam naa ñu woppi coronavirus ji daan nay tax ONG yu bare bari ci àdduna bi ñoom nag ñoo ngi dànkaafu ñu si mel ni programme alimentaire mondial ak waa e FAO ak UNICEF ñoom nag nee nañu ab xiif bu méttee méttee méttee soo muy tuulee dina daal di am ci àdduna bi yéene kaay gi de les échos ak Sud Quotidien ñoom ñu xëy ci contrat contrat bi nga xam ne moo dox diggante Senelec ak Akilee syndicat bi di Sutelec ñoom nag daanañuy génne ab communiqué wax ne contrat la boo xamante ni bu doy waar la baaxul ci Sénégal baaxul ci Senelec baaxul ci client yi ñoom syndicat bi di Sutelec daa di wax askanu Sénégal ñoom ñoo nag war a jàmmarloo ak mbir mi ngir nag lànk mu daa am ndax nag du contrat Senelec Akilee rek moo doy waar ci Senelec am na yeneen contrat yoo xamante ni yu doy waar la yéen a kaay gi di signé contrat bi boobe nag ndax bàyyi na xel ne contrat bi amal na njariñ Senelec Makhtar Cissé ana lan moo tax mu signé contrat bi en pleine campagne loolee samp laaj la yéen kaay gi du di Quotidien xëy sampaat yeneen laaj ne lan moo tax état bu Sénégal noppi ci lii nga xamante ni mooy contrat bi dox diggante Senelec ak ak Akilee te jamono ji coow li daal di siy juddu ba tey moom yéen kaay gi ne est-ce que nag maanaam jotul ñu daal di ci ubbi ab enquête parlementaire wala nag procureur daal di autosaisir ci mbir mi wala sax of nag ngir nag leeral askanu Sénégal Sénégal Seydou Gueye moom nag la mu xamle état bu Sénégal mu ngi suivre li nga xamante ni maanaam moom mooy dossier bi ba tey ci bi di Les Échos mu ñu xamal la ñu club des investisseurs ñoom nag fan yi nga xam ne moom la ñu di génn génn nañu ab communiqué di jàppale Akili ci mbir mi waaye nag loolee daal nay tax club des investisseurs ak pëccëxu daal di say am ndax bëri nañu sa nekk ñoo xam ne ànduñu sa journal bi nag daal di wax ne club des investisseurs a étudiant bi ñu rayoon ci université Gaston Berger sa Saint-Louis nee na nag bëri na ay dig yoo xamante ni digoon nañ ko ko waaye nag la sa bëri fourage daal di xëddee na nee na Marème Faye Sall na tabaxal ak kër waaye nag kër ga dañu ko peinture marron beige maanaam peinture APR waaye nag nee na loolee dérangé wu ko daan nay wax ne Idrissa Seck am na ay digge yoo xamante ni defoon na ko waaye nag defu ca lenn yéen a kaay gi di record ñu fekk fa Xavi Alonso moom nag la mu xamle na lu jafe lay doona ci boppam moom mënut a football footballu Barcelona